bonjour chers amis internet yéen mi safoo diñ seetaan fii si Actubuzz TV mbégte la ñuy am ak contentement saa su ne ak yéen kon nuñ koy defee rek suñu ay actualité people du jour tey nag ñu fas yéene waxtaanee lépp rek loo xamante ne daanaka xew na fi euh, euh, ci actualité people dañ koy ubbee ki nga xamante ne ni moom mooy coowal Mame Ndiaye Savon ak Aïcha Koné ku nekk gis na ni Mame Ndiaye Savon démb dafa doon def euh, live ci live boobu nag mu yëkkati woon ci nag ay kaddu ba tax na nag moom ki nga xamante ne ni moom mooy ay Koné gis ci boppam ba jël kaddu yooyu noonu defe na ni moom moo ko moom waaye balaa rek euh, ñoo tàmbale dañuy dem jëli ji euh, image euh, Babacar bu baaxee ñu jëli ji image naka noonee buñ ñu ñëwee ñu doog cee mun a développer. kii eh xabaan kaay kii da laa ko mun a noppil bu ko wax ci dara ci mel ni ministre moo woote wala lépp kii daa jar wax noppil bu ko wane wax ci wala laxasaay la bëgg da laa wax mun a ko wax ci dara. li nga mën a wax loolu la ñu mën a wax boo nangam taay sa lay ma ne ah kaa bi critique na de kii saaga na ma. yow dèjà man bi ngeen wax ak man ah bi ngeen wax ak man sax xaw ma ni woon kaa bi day critique yow bi nga saagaa laa xam ne kaa bi critique la. ma ne la yow ca nangam taan mbay dëkkum doore rëq gu mag dëkk ko moo ko moo ko fay ah dëkkum doore ay rëq ko faj moom laa gisul saaga nday pour lan suñu borom rek moo dul juum ndax bi may saaga sax bu ngeen déggee saan mbay ma naa ah ah ci direct bi nga nekk ma saaga ñu capturé ko dugal ko waaye yow jëlal li rafet nga taf xam ni man saagal ma ndax bi nga ma vocalé dama laa wax wax bu rafet allo ma chérie ci loo nekk yaa ngi ci jaam ah kii bi nga bëgg amul benn problème maa la koy livré léegi. kii bind kaay bind kii bind wax ma wax ma xaw ma wax lan la ma wax ma mer saaga mais yow bul jël saaga bi jëlal li baax ak la ma la tontu du ma séq ak yow ba di la saaga dañoo bokk jëkkër. dañoo bokk fréquentation fa ngay dawalee dama fay dawalee fooy jaar jaaruma fa bokkuñu fréquentation xale bi saagawu ma de xale bi saagaw ma bi ma woowee dafa ma ne allo ma ne ko allo mu ne ma dañ ma envoyé tu genre dañ ma envoyé benn vidéo nga ne nag ma saaga tu genre xaw ma la ma ne ko non non saagaw la de mu ne non man nga saaga ma ne ko déet saagaw ma la xale bi doon bind moom laay saaga non non man nga saaga rek bàjjanam këf téléphone doom nga saaga boo ko saagaatee naa nangamtaan sa nday ma ne la sa nangamtaan yow tamit du mujj fenn dooma dóor dooma saaga jeeg nga jeeg la dooma dogaale dooma dóor dañuy dem police ñu àtte ku ne mais dooma dóor dooma saaga te boo ma woowaatee léegi saaga ma nag ma saaga la bi gën a ñam déjà man def naa erreur parce que internet mënu war ma fee toog di saaga def naa erreur man erreur bu rëy a rëy man def naa erreur mais man erreur bi ma def yéen da ngeen ko gën a parce que déjà woo ngeen ma rek ma ne leen saagaw ma la yow nga wootawaat di ma saaga nday pour la wala yow dañ la ne man dama leen a ragal kaay bindal ma kii naa ci maa ngi reet naan sama ndox di reetaan xanaa nit sax boo ko woowee kooku amul audacieux saaga la nday yow war ngaa xam ne kii carrément jugul intention pour saaga la la laa séq jow ba la saaga dama la xam xamuma la bokkuñu ñun ñaar fréquentation bokkuñu jëmukaay yaa ngi ci sa lëbër maa ngi ci sama lëbër lu ma séq ak yow ba di la saaga nday lu ma séq jow ba di la saaga lu ma jote ak yow dama la xam xaw ma seen waa kër xaw ma fu ngeen dëkk te yow nit sax bu saagaa ci internet bi yow boo ko wooyee ne ko saaga danga ma envoyé danga ma envoyé ne ma damay saaga mu ne la saagawu ma la li nga war a def mooy waaw dëgg la kay dëgg la rafetal mais sa bàjjen amoo daasee këf téléphone bi di ma saaga nday foog ni bu ma saaga naan ko noonoo si ka man ku ma saaga ma li nga lekk ba reew lu ko raw laa lekk bay cappi-cappi bu ma saaga sa bàjjan bu ma woowee saaga ma nday dinaa ko saaga ba ci digg yàq yow mën ngay yéen yéen mën ngeen di waxal wér ngeen nit ka man dama ragal dara foo leen ma woo ma wuyu leen foo ma woo ma wuyu la mais nit sax boo ko woowee erreur ñëpp lay da dèjà man li gënal li man dèjà rek moom ma taxaw ci internet di saaga nag bi may taaga zalmay mi ngi ma naan zalmay bi ci boppam mi ma naan ah yaa ngi ci direct bi chaque jour erreur yooyu sax dama koy def yaa ngi ci direct bi yaa ngi saaga yaa ngi ci direct bi yaa ngi ci direct bi yaa ngi saaga mais yow nit boo ko woowee mu ne la allo nga ne ko nga ne ko déedéet saagawuma la li la war kay mooy xamal ni nit taaga saagaw la lan laa jot a yow ba di la saaga fan la ñu takke lu dul ci aadama ak awa ma la xamaanuma la yaa voilà cha amee internet bi ngeen seetaanee euh, vidéo yooyu noonu nga xamante ne ni ki démb euh, Mame Ndiaye Savon mu ngi doon def boobu live moom nag ci biir live bi nag euh, mu ngi wax naan ni moom saagol ki nga xamante ne ni moom mooy Aïcha Koné ndax nee na ka mu doon waxal kooku la yëkkati ay kàddu saaga di ko def nee na wante na gis na ni dañoo dagg boobu parti yóbbul ko ki nga xamante ne moom mooy Aïcha Koné ba tax na ba ko kooku woowee da ko laaj ne ko Mame Ndiaye na xam dam maa saaga nee na moom tamit nag moom Mame Ndiaye Savon mu ne ko Aïcha ko man euh, saagoo ma la man aw ma tamit benn intention bi nga xamante ne war naa koo yëkkati euh, di la saaga nee na naka noonu la ki nga xamante ne moom mooy bàjjen ay ko ne yëkkati tamit kaddu ne ko Mame Ndiaye Savon Aïcha ko ne boo ko saagawaatee man nangam taan nee na nag ba tax na moom it euh, tamit mu yëkkatiwaat saaga fa mu gën a ñaawee tibb jox ko ki nga xamante ne ni moom mooy bàjjenu nee na nag moom nag kenn du saaga ki nga xamante ne ni moom mooy ay waajuram nee na ndax ndax tam euh, réew mi ni euh, ku mu gënul ndey gënu la baay nee keneen euh, tamit gënu ko ndey tamit gënu ko baay nee na moom tey amul benn intention di saa ki nga xamante ne ni moom mooy Aïcha Koné da koy gis si réseaux sociaux nee na nag démb la ko kooku woon ne ko damaa soxla woon ci ay jàllaabe ndaxam ñu ngi jëm ci màggal nee na mais bu dul loolu moom musul teg ki nga xamante ne moom mooy Aïcha Koné bët bët ba tax na nag nee na nag ah, moom nag du dépassé kenn nag waaye képp rek koo xamante ne nag da koo dépassé moom it tamit fas yéene na tamit delloo la euh, euh, loolu noonu nee na ndax euh, moom xam na lépp rek loo xamante ne ni waa cybercriminalité dañ koy tere nee na ba tax na sax yenn saay buy def live am sax dina yëkkati ay kàddu sax yu bëree bëri yëkkati ko nee na wante yenn saay ki nga xamante ne ni moom mooy Zal Mbaye moom mooy koy ne Mame Ndiaye Savon bul fàtte ne dangaa nekk ci live bi nee na na comme na nit ñi nañu bàyyi di ko jéem a jaxase ak yenn nit ñi nee na wante saaga moom moom Mame Ndiaye Savon du ko baale ak kenn ak koo munti doon bu ko defee dañuy tàbbi moom mooy Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé nag ku nekk xam na ni moom ab Baye Fall waaye aussi di taalibe moom na gis nañ ni démb dafa génnee benn euh, clip bu bees euh, génnee ko euh, wax ci ni ne ah, mbàggal bi jot na te nee na ndigal jib na te ndigal bu jibee rek ku nekk rek da nga koo war a def ba tax na moom Ngaaka Blindé dañu gis ko na ci biir clip bi nag mu dindi ay ay tentam watu li nga xamante ne ni moom mooy ndel bu set naka noonee nag ba mu ko defee nag loolu nag soulevé na ay coow yu bëri parce que nit ñi nee nañu lan moo tax moom muy xaar ba tout en sachant que ni l'islam yàgg na di digle loolu te nanguñu koo def kon nag euh, nañu bàyyi seen xel yi nga xamante ne ni euh, dañ koy foowee na nekk na kàddu yi nga xamante ne ni ba kilipam bi génnee démb nit ñu bari yëkkati nañ ko euh, wax ko kàddu yooyu noonu buñ ci jugee dañuy taabi ki nga xamante moom mooy jaariyeetu njaay jaariyeetu ndaa njaay nag ñëpp xam nañ ko muy benn célébrité fii nga xamante ne mooy si suñu réew moom nag bokkoon na si théâtre bi nga xamante ne ni moom mooy maîtresse d'un homme marié ñu ràññee woon ko si foofu noonu mu nekkoon soxna ki nga nga xamante moom mooy euh, Elmo Flow moom nag gis nañ ne nag ni ki démb nag mu dugal benn vidéo wane mu ngi fi la nga xamante ne moom mooy màkka dem ziyaare ji suñu yonent bu tedd bi naka noonee nag ñu gis ne nag ñenn ñi dañoo yëkkati ay kàddu ah dine ko ah, baal ñu àkk parce que ñun dañ la ñun dañ la fagoon ne yow euh, ah, ab ab euh, chrétien nga woon mais nekkoo musulman moom nag tontu gam leen tontu dafa leen ne lool mun na leen ah noonu la ndax juumte mënul wees noonu moom ñu gis ni nag ci vidéo yooyu noonu muñ ci génnee ay rongoñ di jooy ay jooy yu métti nee na mu ngi sant yàlla di julli si yonent bi bu baax a baax a baax euh, ba mu ko defee mu nekk li nga xamante ne nag euh, moom mooy jullite buñ ci jógee dañuy tàbbi ci ki nga xamante ne ni euh, moom mooy Jojo euh, Jojo King parce que moom na gis nañ ki nga xamante ne moom mooy chef taala chef taala nag ñu gën koo ràññee ci ki nga xamante ne ni euh, moom mooy Griff Diouf ndax ñoom ñaar ñoom ñooy déedéet ànd moom nag jamono yee ñu génn dañoo dem fële nga xamante ne moom mooy place am euh, yëkkati ko foofu noonu dàq ko ne ko léegi nag amatoo benn droit ngay jaayee fii nii naka noonu nag ñu gis ni Jojo yëkkati na xaalis bu takkoo takku somme bu toll ni 500000 jox ko ko pour rek nañ ko wutal fi nga xamante ne moom mooy place boo xamante ne dina fa mun a jaayee ba kenn dootu jotu ko euh, yëkkati moom na taala nag mu yëkkati ay kàddu nee na mu ngi rafetlu geste boobu noonu nee na ndaxam joojo bu ko neexoon euh, du ko doon def ndax xoolu si jëmmam bu xeebu boobu noonu yëkkati xaalis euh, jox ko ko nee na wante tam mu ngi gërëm rek képp koo xamante ne da nga di sénégalais di bàyyeekoo fii ci suñum réew dañ koy dooree ki nga xamante ne mooy doom ci Ismaïla Lo moom nag ci ko semaine bee ñu génn dañ ko tegoon loxo ndax nee nañu dañoo fekk ci moom ay xaalis yu takkoo takkoo takk moom nag ki démb nag li nga xamante ne moom mooy juge du deuxième da koo def li nga xamante ne ni euh, moom mooy mandaa de dépôt waaye nag naka noonu na ba mu yeggee foofu na gis nañ ne encore euh, ba tey rek li nga xamante ne ni mooy euh, ay plainte ñu ngi koy fekk si foofu noonu mu nekk ca kaso ga parce que ba tey rek yeneen plainte yi ko fa fekkaat tamit ñu ngi koy toppee ci wàllu escroquerie ndax ñoom nee nañu dafa lekk ci xaas yu bëree bëri nga xamante mooy fii si suñuy koppar ñu doore ak nga xamante moom mooy Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye na nekk na chroniqueur fële ca Walfadjri moom nag ndiki bañ ko tegee loxo ak léegi nag xawoon na euh, yàgg tuuti gis nañ ni démb nag dañ koo may li nga xamante ne moom mooy liberté euh, provisoire waaye tegaale aussi si ndoddam li nga xamante ne moom mooy contrôle euh, judiciaire ba tax na moom nag bañ ko bàyyee nag kàddu yi mu ñëkk a yëkkati nee na mu ngi sant yàlla di julli si yonent bi waaye di sant tamit képp rek koo xamante ne dangaa bokk si njabootu Serigne Touba bi nee na wante di sant tamit ki nga xamante ne ni moom mooy soxnaam di madame Ndiaye nee na parce que lépp moom la nee na ndax gannaaw bañ ko tegee loxo boobu ak léegi ki nga xamante ne ni moom mooy madame Ndiaye seetaanu benn yoon def na ci kemtulaay kàttanam euh, ba tey li nga xamante ne ni mooy yoon euh, euh, ñu may ko liberté provisoire bi pour mu mun a passé màggal gi moom ak njabootam dañ koy dooree ki nga xamante ne moom mooy Miya Gise Miya Gise nag démb doon organiser li nga xamante ne ni moom mooy anniversaire am mu def ko nag huis clos moom dong la woon ak ay njabootam ñu gis ni tamit nag génneewaale na ki nga xamante ne moom mooy doomam bu jigéen bi loolu na soulevé nag yu bëri ba parce que nee nañu Miya musta génnee ki nga xamante ne moom mooy doomam bu jigéen bi la moo tax mu xaar xaar ba démb ca anniversaire am bi muy génnee doomam bi nit ñi tamit nag di ko souhaité happy birthday to you ñoom nee ko lii nag moom moo nekk guléet mu def li nga xamante mooy anniversaire am parce que nee nañ Mia même jamono ba mu nekkee sax si bu li nga xamante ne ni euh, moom mooy anniversaire comme tey bu yàlla dogalee mu génn si sëy di def li nga xamante moom mooy anniversaire am ñoom duñ def lu dul soutenir ko ak jàppale ko di wane ne mu ngi ci lancé bu baax nekk aussi si yoon bu baax dañ koy tëjee ki nga xamante ne moom mooy Ndeya Beauty Ndeya Beauty nag ku nekk xam nañ ni euh, samedi bi la ñu génn la doon def mariage ni ki dee mën a gis nañ ko mu ànd ak borom kër ki nga xamante ne moom mooy Kara Guissé di dem fi nga xamante mooy euh, seen lune de tey nag li lañ leen indiloon ci actualité people du jour di jaajëfal Babacar di leen joxaat di dajare ba beneen yoon